jaa ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte ni ñu koy defee saa ne ñu ngi toog kenn koo xamante ni ci làmb comme na ma ko daan waxee ci yeneen sampion yi rek champion moom dimanche bu jot sampion génn waaye doon na champion boo xamante ni ren moom lañ tab tabb mbër bi nga xamante ni ren moo jël trophée euh, lutte simple bi AMPS bi nga xamante ni moom lañ ko doon jox mais ñëw na fa moom ak yeneen nawle mbërëm ba ci Modou xarañ loo ñu koy félicité encore di félicité général Malika tay moom lañ seet si pour waxtaan Zé ñu ngi lay nuyu. doom day maa ngi lay fay ginnaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi di gërëm sumay ñaari waajur di nuyu suma sëriñ si Ablaye Diop borom xaas di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te wér di nuyu waa Malika bi ah yëmbal benn baraag waa Boune waa àll ba waa Kër Massar waaw Mbëbës di nuyu képp kuy bëggee général ah di nuyu ñëpp waaw. Zé ñu bëgg waxtaan ci làmb ci bëre jóge ci ci bëre simple avant tout dañuy commencé ci bëre door bi bëre dóor bi ñaata combat nga ci bëre ak ñaata combat nga ci gagné ñaata nga ñàkk. bëre dóor def naa ci douze combats am ci neuf victoire trois défaites waaw. kana la daan. ñi ma daan ma xool gisatuma leen ci làmb ji de champion yi ma daan kenn bëreetu ci kay. comme ñan am na ci ñoo xamante ni. ay ay Mor Mor Yekini daan na ma. bu parcelle. parcelle waaw am na ci man ndam ak kan. Euh, nu mu waa ji dama koy fàtte benn benn mbëru séeréer ñu doon bëre ah mooy loolu moom ci ndam mooy loolu quoi. agogo agogo daan na. waaw am na ci man ndam waaw. waaw depuis boobu ba tey dañoo gisaat beneen général Malika lan moo waral loolu defet moo baax ci mbër wala da xam li la làmb jaral nga ne ci. waa non boo ko gisee rek maanaam ñun moom làmb lañ am làmb suñu lépp yàlla def na ni ba may dugg ci làmb damaa yokk benn at pour bëre. yàlla xam na loolu damaa yox benn at pour bëre te loolu li ko waraloon mooy dama dama nekkoon ci mbapatu ko yi bëre ci def ci lu ne toll benn moment nag gaay na ma gaay foog nga bëre arène mu doon loo xamante ne nag làmb moom dañ ko jëloon def ko comme comme li nga xam ne dañ koo bëgg mu doon suñu espoir ñu koy fooyee def ko suñu xol ba làmb ji wuy suñu quoi ñu jàppee nag ni ñu ko bëggee noonu doon ci doxee noonu la ndekete làmb doxewul noonu làmb am na leneen lu loq ci ginnaaw lu bokkul ak liy feeñ ndax làmb li nëbbu ci làmb moo moo ëpp li feeñ moo tax mooy loolu ñu jëlaat ko fonkaat ko téye ci suñu fukki loo xam ni mbër boo ko doonee waroo toog rek di xaar combat arène ndax jamono jooju banlieue bi fii dem nañ benn instant kenn nangootu fi tëgg mbapat boo tëggee mbapat mu am ay violation gars yi di xeex jàppal baay lii dem ba ñun ñu arrêté woon maa ñu duggee nag ci arène affaire yi commencé dëgër boo waxee général ñu ne combat am day metti day xeex affaire yooyu ma bàyyi ko fii tamit continuer waat xaar ma dem simple simple dugg ci làmb séeréer waaw. Mhm. nga dugg ci làmb simp séeréer yi kañ nga dugg ci làmb séeréer yi commencé di bëre simp. làmb séeréer yaakaar naa ren laa ciy def trois ans ah. ren laa ci def trois ans maa ngi ci dugg daawaati daaw jéeg ah daaw jéeg laa ci dugg sama première. waaw sama première mille 2018 ay 2017 yooyu noonu ah ndax dama sama première anne dama cee dugg nii jàppoon ko comme compétir rek damay dégg laam am na ma jël sama ngemb dem. ay nit xool ma ne ma yow champion nga avenir waroo ñëw di ñëwee ci lii ci làmb nii ngay ñëwee ci làmb champion du ko ñëwee ci làmb boo buggee bëre muy si yitte bopp booy ñëw day am noo fi ñëwee man la naa ah, waa baax na fekk dama doon def noonu rek ma dem ba benn saa xam ne lii teraanga ngi ci en même temps dina la apporter lu bëri ma jël ko teekoog samay fukki loxo commencement moom dama doon ñëw rek teekoo noonu par la à la par nii rek ñëw contact après bu jeexee jeex na ma dem nag ba xam ne lii nii ay foo ma jël ko ci laa ko jëlee nag teekoo samay fukki loxo commencé dugg ci àll bi di bëre commencé di ñëw tamit dakaar di bëre waaw. bi nga duggee ci làmb arène bi di di bëre ci làmb simple bi euh, kañ nga njëkk jël sa sa sa première mise. première mise maa ngi ko jëlee adresse Senghor ah adresse Senghor laa jëlee première mise ah. tëggoon ak ñaata nga jëloon. tournoi 500000 lañ tegoon fàtte naa nag ki ko toogoon vraiment mais 500000 lañ tegoon boobu laa njëkk a jël nekkaat ci kawam. mais avant loolu tamit daan naa bëre ci àll bi di jël ay nag affaire yooyu noonu ndax dama naa benn instant jaxaaw siin laa duggoon côté boobu noonu mbapat dóor la ñuy def quoi ma nekk fa di bëre mbapat dóor dama benn instant ma commencé waat wàcc si Dakar affaire yooyu noonu yàlla di ma suturaal waaw. Mhm. ñu gis ci diggante daaw ak ren. daaw def nga parcours bu bu bu bu garaaw bëreeg ay champion daan la ba ci ba ngay bëreeg Reug Reug daan ko Adrien Senghor Adrien Senghor ngeen bëre woon. waaw Adrien Senghor lañ woon. nga daan ko. daan yeneen daanaan ren ñu gisaat beneen façon général ko lu xew. waaw li xew rek mooy maanaam ku ñëpp tifli rek nga tooy ku ne xam na ni ren gars yi dañoo sóoraale général bu baax waaw moo tax mu demee noonu mais nag maa ngi koy sant yàlla ndax ñun sport lañ gëm yàlla xam na ni dama doon forcer sax ñëw di bëre ci cat mooy loolu mais bëgg bëree rek ndax man xama làmb dama ko bëgg sama xol damay toog sax war a dem làmb ñenn ñi naan ma du ma dem ma leen garaawul amul problème ndax ñoom xam nañ ma xam nañ ni général doon doxee xam nañ li nekk ci général dem nañ ba benn instant lu bëri commencé wàññeeku ñu naan ma toogal xaaral defal nangam ma leen cooju bu am benn problème nañ leen dem am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur. bëri lu commencé wàññeeku lan la. waaw dara dara dara wàññeeku fi ah xanaa ñëw rek coow lu bëri soo ñàkkee ñu def ko événement loolu la rek mais dara wàññeeku fi xam nga maanaam làmb liñ naan saa su ne rek li ci nëbb moo ëpp li feeñ mais man lépp sport laa ko jàppee tey su ma doon dem ci tournoi yi ñu may daan dix fois du ma teree bañ a dem xam nga lu tax commencement damaa ñëw ñëwuma rek tàmbalee jël de dama doon ñëw di jóge ko daanu muy mettee ka neex comprendre nga ma nekk ci loolu noonu ba yàlla di ma suturaal ma dem ba benn sant commencé të ci biir gaañi bu demaatee nag ba demee nii damay xam ni maanaam suñ borom bi ma doon may démb bërki démb jugeew fi ndax bu fekkee sama wàllu carrière wala sama wàllu li may dundee làmb li ma doon def tey laa ko gën a yokk tey laa gën a fonk sama bopp tey laa gën a entraînement tey laa gën a jox làmb àqam kon booy def yooyu yëpp ñëw muy am nu mu demee da nga koy sant yàlla da ngay toog bàyyi bëre wala da ngay demaat ne doo bëre chaque dimanche ñu gis ku daanu mais c'est boo doonee champion boo daanoo rek gaa yi def ko événement mun nañoo dugg ci làmb doon 64 litres ñaaray finaalu comprendre nga mun mënuñu woo fexe ba ñaaru finaalu ñii dañuy daan ñii daanu léegi nag mooy lool noonu boo daanoo ñu wax jël naa làmb ñëw mooy lool ñëwaat ñàkk gars yi wax mais amul problème garaawul. mooy loolu bi bi bi saison bi ubbee ba léegi compétition yi nga dem. war naa mat ñett wala ñeent yoo xamante ni teg nga fa sa tànk mais yi nga dem yëpp yu ci bari yëpp da nga ko ñàkk mais benn nga jël mooy bi nga jëloon adresse nga te da nga koo jël ba pare tëdd jooy lu waral jooy boobu. waa sant yàlla rek ndax tam xam nga ngay toll fenn fi ci làmb gis di dégg lu nekk waa gars yi commencé wax te ñun ay xel leen danoo bëgg làmb am na ñoo xam ne ba ñuy bëgg làmb tàgguñu leen xamuñu leen sax dañoo xëy xëy rek gis ñu ñu am luñ def ay wax commencé bari. wax ay mbër mi dootu fi jëlati làmb kii koy wax mbër la. ay façon wax yu ne ngay dégg ci gaa yi mais man damay xamal gaa yi nekk ci banc de touche yi di wax ñun ba ñuy bëgg làmb tàgguñu kenn bu fekkee ci làmb laay deewee nañ ma préparé te xam ni ci laay deewee bu fekkee ay wax ak ay yooyu mooy tax man ma bàyyi ma bu yeboo ñu xam ni man damay dee ndax mënuñu maa tere bàyyi ndax ñu bëri dañoo xëy xëy gis ma ci làmb ji xamuñu li ma indi ci làmb ji kon tey du ma nekk xale di ñafe suma live ñëw ba tollu fenn fi ñi nekk ci àll bi di wax naan ay du jël nangam wala du fi am dara ñooñu ñu ngi nax seen bopp jum nañ. ñooñu lan la da nga daan seen mbër wala daa am foo jaar ak ñoom wala da leen a yoreel xaalis. ñàkkul man du ma yoreel xaalis nit ñaanu ma ko yàlla man ku may jëflanteel moo loolu noonu jàmm la ni seex buñ ko mënatul seex nga dem ma dem mais dafa am yoo xamante ne dafa dafa ñaaw quoi ci làmb nañ leen yaatal làmb da bàyyi li ñuy def te xam ne làmb suñu sport national la ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp ko bokk mais des fois da ngay ñëw sax ci làmb ñàkk mu am nu mu demee ay nit génn di wax ma naan leen ñiy wax bu ñu mënoon ñu indi ñi ñu yor wala ñu indi ñi nga xamante ne ñoom lañ yaakaar teg leen chaque jour ñuy jël fi yàllaa fi nekk kenn mënul kenn kenn gënu fi kenn kenn ëppalewu fi lenn kenn loo am ba koy ciitaroo ku ko ko ëppoon a ngi fi woon tey ñii ñu ngi ci biir suuf tey ñii ñu ngi fi lañu yoroon yoratuñ ko kon làmb nañ ko jël def ko sport mu yam ci sport bu jeexee jeex na mais dafa am ñoo xamante ne làmb defatuñ ko sport kase te yooyu noonu amul solo ndax tey nit mënoo lekk lu dul sa wërsëg lii sa wërsëg rek ngay lekk man sant naa yàlla bu ma xëyee sax di am ñaar fukk doyloo naa ko man du ma fëgg buntu kër kenn du ma ñaan kenn du ma yalwaan kenn musuma dem ci làmb daanu dem sama morom mbër ne ko may ma paas wala jox ma nangam billaahi wallaahi wa taalaahi musul am su ma baree daanu bu ma yorul sax paas damay dox dem ñibbi te des fois ma jël làmb ay mbër daw si ñëw ci man ma may leen paas wan leen ginnaaw kon tey li nga xam ne ñun noo ko ku ci nekk rek li nga ci war a lekk nga ciy lekk li nga ci warta lekk mënoo fexe ba lekk ko mais sant naa yàlla sant naa yàlla bu baax a baax a baax xam nga lii dafa yombul xëy di am wér xëy nekk ci jàmm di xëy di gis ak say famille di dem entraînement di ñëw nekk ci sa bopp loolu rek dafa neex làmb nag buñ ci duggee xëy na ngir bëgg a a ci tax comprendre nga ñu dem ba yàlla dogal am ñoo xam ne dañu cee bëgg diñ tiitaroo mu jar leen ñii di xuloo ñii di werante mais na yem foofu noonu quoi na yem foofu noonu te xam ni làmb mënul weesu làmb fii loo di doon tamit day jeex bu dee doole nga am di ko jaay bis dina ñëw doole jooju nga doon jaay dootoo ko yorati comprendre nga. àdduna amul solo mais sa digganteeg sa digganteeg rëg-rëg lan la yéen lan la ci comme lan. lan la quoi yéen ñaar lan moo ne seen diggante ci seen làmb lan moo xew ñaata yoon ngeen bëre ñaata yoon la. non man aw ma moom problème yow li may laaj nii sax xaw ma lu waral nga ma koy laaj. sama diggante damay dégg ci coowu général Malick rëg-rëg général Malick xam nga ñun ci làmb la ñu bokk. yow loo xam-xam ma dem ma ma dem a gën laa xam. man boog dama par man du ma toog bay xalaat sama moromu mbër. du ma toog tamit bay wax ci sama moromu mbër ku ma bàyyi xel nag xëy na man ngay bàyyi xel mais man bàyyiwuma ma a def la su ma ñëwee ci na la mais quand a jóge ci loolu di bàyyi xel mbër aw ma sax jot boobu noonu vraiment quoi yàlla xam na loolu aw ma jot boobu noonu bàyyiwuma xel kenn xalaatuma kenn bëgg a xam yàgg rëg rëg ñaata yoon ngeen daj bëre ñu bëre nañu ñaari yoon comprendre nga première bi mu am coow moo loolu noonu beneen bi yàlla suñu borom defal ma ndam moo koy sante yàlla comprendre nga ndax tamit fii kenn mënul li may wax chaque jour rek da ngay daan kii tey suba kee daan la ku jàpp ni fii yaa mun ndax nga sa bopp comprendre nga làmb làmb la mënul weesu làmb ñun la ñoo xew xewle rek tollu suñ jamono ñu ñuy ngawti ngawtee fii ay cinq ans ci ginnaaw dix ans ci ginnaaw ñoom Yékini nga fi doon dégg ak ñoom Tyson boobu ñun ay tout tànk lañ xëy na ñoom bàyyi nañ tey ñun ñoo ci toll kon na rafet ak lu mën a xew rek na rafet làmb mënut a weesu làmb làmb lay doon te du mës a weesu làmb man ñaanuma ci yàlla am ak ceeg kenn problème benn mbër mais bu ñu nekkee ci làmb dañ koy neexal ba mu neex bu jeexee ñ xam ni jeex na waaw. bëre simple kan moo la ci sonal koo xamante ni moo xam nga ni kii moom lakkal na la ci bëre simple. amul. amul non keroog gis nga booy bi la daan. Euh, nu mu tuddati euh, kii nu mu tuddati sëñ Bas dimbali ma. booy bi dëkk Dalifort nu mu kaw si seen numéro 2 bu Dalifort moo la toogloo arène nationale premier tour général champion bu doon ni général toogee premier tour keroog làmb ji ñëpp nee général lan moo xew lan la da ngaa pare amul mystique wala mbër yi dañ laa jekk wala qu'est-ce qui se passe lan la yow lan moo xew. non alhamdulilah rabbil di sant yàlla bu baax mënoon naa dugg ci làmb ji bëre fa damm fa wala ma daan leneen ak leneen daal ma chaque jour ñu gis ko ci làmb ji man du tey laay soog a dugg ci làmb ma ñëw ci làmb daanu premier tour damay sant yàlla laa war a def man maa may sam bopp. làmb ji de dañoo waaru kenn. waaroo man xam nga lan moo doon waar nit ñi. Hmm. général entraîné wul fonkul boppam day nekk ci naka sudul noonu. boobaa moom lu ma dal bu leen neexee mun ngeen a ñëw mais chaque jour maa ngi sama a pas su ma demee noonu mbër mi dañ doon bëre man maa ko yëkkati di xamul lu ma daane loolu noonu ma ko doon def barki alxuraanul karim amul ku ma ci daanul. daan naa ci façon mbër mu ne bu ma ñëwee mu demee noonu dama ciy sante yàlla comprendre nga man aw ma kenn problème ñooñu ñu koy def sax problème ñoom xëy na ñoom la seen xel gàtt rek man mbër laa mbër mu gëm yàlla laa sportif laa est ce que dégg tey da ngay ñëw neex le suba doo neex le comprendre nga su ma ñëwee ñàq aw ma ci benn pression damaa continuer waa dem du ma ne metti wu ma metti na ma mais li koy faj mooy damaa xëyaat concentré waat sama entraînement nekkaat sama bopp di ko sante yàlla ndax suñu borom lépp lu mu def rek mooy lu gën mënoon naa daan foofu jógewaat demaat ci beneen combat mu gën a ñaaw. mais mbër mi dañ doon bëre muy daw ba am aver deux avertissement ma forcé ko jàpp ko téye ko ñaari loxo di ko zongale di ko dóor jiitu mooy loolu amul benn problème. comme des fois nga dugg si gis yenn champion yi ku mel ni booy fay dugg si Franc dugg si Caaka fay dugg si ngay sóoraale ñooñu ba ba bàyyi sa xel ci ñooñu. ba tey ab ab jiili mii daan na. <laughs> yàlla ma ci yàlla musal bi ma yëgee ni nag sama xol bi maa ngi ciy bàyyi xel sama morom rek wallaay ma dem bàyyi tekki sama bu bàyyi ku baax li may def yombul làmb ku ko yombal tamit ñun xam nañ ni yombul sunu côté dañuy xëy di yeewu 5 heures du matin billaahi wallaahi wataalaahi dem dindi daj lu metti jógewaat fa dem saal ngoon nga demaat contact gi loolu boo koy def di am looy bàyyi xel bu yeboo nga dem xoolaat sa bopp man xale bu ndaw laa billaahi wallaahi làmb ji ñiñ may sax tëqaleel bañ ma liñ ma magee dafa bari ban année nga barki yonent yàlla Mohamed jarul ma koy wax si suñu waxee ñu ne mbëri dañuy wàññi at yàlla xam na ni simple bi bokk naa ci ñi ci njëkk a ñëw mais sant naa ci yàlla li ma ci am am na ñu ci def ay ati ati at aw ñu ko am ñoo xam ne dañ doon toog ñun ñu ngi si bande tous bi ñu ngi suñu kër yi ñu ngi dégg lu ne mais am na ñoo xam ne dañ doon toog naan ren général du am dara comprendre nga da loolu lañ doon wër di wax mais maa ngi sant yàlla su ma ñàkkee tey am naa suba est-ce que yaa ngi kon loolu ak cant la nañ bàyyi yooyu détail yooyu noonu ñuy dugal ci bopp nit ñi nañ ko bàyyi man déggoo lu ma la amul nit bu may bàyyi xel man su ma ko defee sax sama sama sama waa kër non luy problème. non problème bi am mooy daaw da ñëw ci làmb simple def lu fi mbër deful. waaw kon sant. ñu tab ñu tabb la meilleur lutteur bi bi dàq bëre ci lutte simple. ci saison deux mille dix huit deux mille dix neuf. léegi nga ñëwaat ci saison bi ren xam nga ni waru gars yi duñ bàyyi mu sedd ci ñu ngi ko jëlee woon. dañuy récupérer waat seen seen trophée. duñ bàyyi mu sedd. mais man ma mu sedd man xalaatuma bàyyi mu sedd chaque jour maa ngi ci. boo bëggee dégg-dégg daal général dafa noppalu ci àddunaam man yéenewuma kenn lu bon ku ma yéene lu bon yàlla naa ci jiitu su dee maa ngi xool sama morom man ko yéene lu bon yàlla naa ci ma am dooloo naa ko lu ma amul sante naa ko yàlla man sama àdduna dama koy yombal man problème bi gars yi am amuñu ko man du ma xëy bay bàyyi xel beneen mbër yàlla xam na loolu damay xëy di nekk su may entraînement fonk su waajur fonk ñi ma nekkal comprendre nga bu jeexee jeex na ndax damaa xam ne làmb temps bu gàtt la après day jeex ñu nekk ci leneen ma yàlla ñaawo ceeg nit wala dund ak ceeg nit loo xam ne ëllëg ci biir dama koy xool di rus loolu amul lu ma ko jaral ci ci àdduna gëm naa sama bopp fonk naa suma bopp gëm naa yàlla suñu borom ndax jàpp naa ne suñu borom mooy maye mooy xañe su ma mayee dama ko koy sante su ma xañee ma sante ko ko wala problème ñi fi xëy dee dama leen a gën chaque jour yàlla di rey chaque jour yàlla di dundal ay doomu aadama chaque jour ñiy dund ay nit ba ba fàtte bànneex ci àdduna man maa ngi sama jàmm maa ngi sama famille maa ngi may ami maa ngi sumay nit sant naa yàlla aw ma lu may perte wala di ci gagné ndax lu tax xale bu ndaw laa dara tollaguma fu may amee ba fay amul doyloo naa ko comprendre nga làmb jaa ngi sunu kanam maa ngi sumay entraînement di préparer. ñu ngi lay xaar le 23 mars lan moo xew. le 23 mars est-ce que gënoo ma koo xam maa ngi samay bopp daal. sa combat yow ak Fils de Balla kañ la. 23 mars le premier la kañ sax. le premier mars. waaw. le premier mars le 21 le 21 ma naan le. 21 mars mars wax nga dëgg de le 21. oh dama nekk ci entraînement yi yàqamti de. dama nekk ci entraînement yi la léegi la la la ma ne ko général la ngi toj lamb simple yi mu ne ma. mu ne ma lan la la la wax seedaana gu ma ko de barki yàlla seedaana gu ma ko. nee ma jëlu dara. saa yu bëree ñu daan ko mu ñibbi. yàlla nag vraiment. yàlla jàppee nga xam ne lépp dëgg la benn kele nga maa ngi sant yàlla. ba ma génneek léegi ñi doon wax du ma gañe gañe naa fi ay làmb gañe naa su may nag ah lu ma am dooloo naa ko ñu naan nag du ma am wala gañew ma yàlla baax na. loolu ci fils de Balla laa bëgg nga wax ci. fils de Balla la laay wax ci moom. bu dee bu dee bëre maa ko dàq bu dee doole maa ko uti bu dee ñeme def bu dee xale maa ko gën a nekk li am solo mooy suñu làmb la nekk nañ ci concentré wu. di profité ci occasion bi mbër naan la félicitation dégg naa da ko doon tudd fan yii di la ñaanal suñ. fils de Balla waaw da doon génn champion la kooku gaynde la de. fils de Balla maa ngi koy ñaanal doomam doomam ji vraiment yàlla ko suñu boroom def mag yàlla def ko magum diine magum lislaam quoi vraiment mbokk soxnaam si yàlla boole seen diggante dolli leen defal jàmm dolli ko sutura dolli ñu sutura adversaire la mais mënul ñaaw mënul salte làmba ñu boole dañuy bëre bu jeexee jeex na dégg naa nag ngéntam li neex na trop mais damaa fekkoon ma génn boo fekkoon dinaa fa ñëw sax xaw a yëngal tuuti quoi waaw. dafa coow bari de. lu muy bëree. invité la nga dem boo tojee kaas yaay fay. saa yi su ma amee la ñoo war a bëre sama adversaire la tey jii bu nekkee ci lu baax wala jàmm ak salaam ndax ku ne xam na ne am tout temps que loolu mbégte la war naa ko ñëw partager ko moom kon ya ko tey bu ñu jël affaire ko garaawal a na ci ñoo xam ne lu ñu yàqamte rek mooy seen mbéyum mbër yi dee la war a ñu am problème bañ mun faa dem boo waroon sax bëri moom di nga def la tout pour dem fa loolu nga woo ko dépassé nañ loolu tey dafa war a na ay adversaire lañ lamba ñu boole après day jeex amoon na ay moromam yoo xam ne adversaire lañ woon te bu mu jeexee jeex na tey ji yàlla moom la ma booleel maa ngi concentré suma bopp di waajal suma lamb du tee tamit ñu seeq jàmm ji am déet nekkul dañoo war a bëre dañoo war a waxante lu ñaaw wala war a xasante wala war a adversaire la comme adversaire yëpp après day jàll dañuy nekkaat ci leneen waaw mooy loolu noonu. jaajëf Général Malick. ok jaajëf tamit nuyu suma gars yi suma am yu may àndal ndax vraiment dañoo soonu ci man ku si mel ni ñoom jaal papa Cheikh Tidiane xam nga ñoom Pa As ñoom Pape Ndiago ñoom Pape Dionu xam ñoom Djili ñoom Kéba. ñoom Bakary Sané xam nga ñoom Dev Kaana sama mafia bi daal sama gars yi may àndal ñoom maama gars yi sant naa leen di nuyu ñi may jàppale ndax sama gars yi dañ may jàppale ku si mel ni ñoom Zungale ñoom Pape Matar boroom Pilitans ñoom Cheikh si borom Gambi Cheikh borom Gambi vraiment sant naa ko bu baax a baax a baax Cheikh si aw ma fayam su ma copain As As borom Ndukumaan aw ma fayam Talla Diop sunu garant moom it mooy suñ chef de mafia mais day jàpp ci bagage bu baax quoi ay ñoom daa xam nga sama am yi nga xam ne daal ñu ngi may jàppale sant naa leen bu baax a baax baax di wax làmb ji làmb homme de tenue la sama waa koñ waa Kër Massar waa Pilotans làmb ji seen làmb la di ci woo sama ami gendarme yëpp ak sama agent dizaine waa agent dizaine yi waa service d'hygiène maa ngi leen di woo naan leen lamb ci seen lamb la Pape Matar risqué loolu sa loxo laa koy teg nee naa leen lamb seen lamb la sama copain gendarme yi góor gi Koliba suma kotsu làmb ji seen lamb la waa asfa maa ngi leen di bégee bu baax a baax di wax ni lamb ji nii ma jëm ku jàpp ni day yomb nax nga sa bopp. yombaloo. xalaatuma ko yombalal Malika damaa yónni yàqamti ma <laughs> yëmbal yónni ma benn baraag waa buun waa àll ñaax comprendre nga dañoo nekk suma ginnaaw waa Kër Massar li nekk suma ginnaaw dafa bëri ku jàpp suma lamb day yomb nax nga sa bopp man jàmbaar laa gaynde laa man lu metti metti damay xare sama lamb boo gisee sax simple ni ñuy demee nga xam ne général nii day forcer rek ma su ko neexoon ma toog mais gëwuma loolu noonu man gis nga sama waar bi ma nekk di ci suturloo di ci tedd am su sumay nit yu baax tey jii nii su ma ci xëyoon sax di ko def ba dara fekk ma ci dama koy sante yàlla te xam ni xandoor bu demee ci waar wàcc na. su ma waar wi lu ma ci daal dama koy sant yàlla ndax su ma liggéey la ñaata nit la fi nit chauffeur yor oto di muy métier am xëy am ci problème ñaata nit la fi tëyër xëy ci liggéeyam am ci problème ak yeneen ak yeneen kon sant naa yàlla bu baax di baalu ñëpp aax tey baal ñëpp aax lu ma fi wax muy lu rafet amaana yàlla suñu borom la li ma fi wax muy juumte wala erreur amaana doomu aadama moo matul ndax ay ndaw lan dañuy wax mën nañoo wax erreur mën nañoo wax loo xam ne mooy maa ngi jégaluwaat ñëpp di baaluwaat ñëpp àq di wax at bu bees bi yàlla na doon atum mbégte atuk naataange atuk yokkute quoi vraiment di félicité waale Sadio Mané ndax ñun ñëpp la sigil Sadio Mané Sénégalais la mais mu ngi faayit ngir Sénégalais yëpp quoi vraiment day wax Sadio maane yàlla nga am jàmm suma papa suma père père Pape Diouf ancien président Marseille suma papa ju ñàkk ki la